ci lolo aussi euh biñu défé loolu ci jamm ak salam yalla dogal na ñu xoolaat suñu yoon defaraat suñu taxaway ngir mëna am tanku yu dëgg ci j'ai fait des nominations yu qui ci suma staff muy suma management ndax teg nañu benn société entreprise bu mag bu boîte bu tudd PDG PDG su ngeen ko déggee mooy Pape Diouf Group et ki nekk ci bopp bi mooy sama maxtar Makhtar suba teel ma am nag ak moom ay relation yu yàgg ça de 15 ans bu ko matul li koy manqué fukki at ak juróom bariwul bàkkan sekk mii toog ku ne bàkkan ne Pape Diouf ndax fi nu jaar jaratul sax ma koy tudd ndax wax naa ko fu nekk ci àdduna bi sénégalais yépp xam nañ ko donc bàkkan mii moom ma présenté woon Maxtaar Maxtaar nekk suma rak déggal ma bëgg ma tamit di ma suivre xër ci sama liggéey ba yàlla dogal tey mën réalisation yu mag yi carrière muy Zénith 2013 di Bercy 2018 ba ci album bi nga xamante ni tey moo tax ñu pour présenter leen single bi nga xamante ni mu war na ci album bi Paris Dakar sabab

di samay rakk yoo xamante ni mën naa ne yar naa leen ci sama loxo tàggat naa leen ci sama wet ndax biñ may fréquenté dara lalu ko lu dul cofeel ñu bokk usine ñaari tali muy suma rakk ma yàgg ko xool mu nekk xale am aussi pas-pas nekk fans inconditionnel de part Diouf bi ma baal si fu ma mën a nekk si àdduna fekk na ma partout dans le Sénégal fekk na ma fu nekk Europe am ci man cofeel ma gis leen jàng leen am ci ñoom kóolute intégré leen ñu ñëw pour ànd ak man jàppale ma ci liggéey bi ngir Sénégal li ñu bëgg ci musique sénégalaise musique africaine ñu mën ci am ndam bu loolu weesoo aussi Papis Konaté ci kàttanu yàlla ci dogalu yàlla intégré na ci groupe bi

gis proposition bu ne mu tok japp ci liguey bi ba yalla dogal tay Papis wara intégrer intégré groupe bi mu def ci nak ay djego yu am solo aussi def ci ay djego yu am solo kon je pense que ni liñu wara wax yépp tay bari na ndax occasion la mhm. mais di len wax ni nak rek en grosso modo staff bi yatuna waaye ñëpp mënuñu leen dévoiler. Mhm. ndax li am solo rek mooy liggéey te yàlla rek tax Papis aussi ñu koy remercier ndax fekkoon nañ ko ci ay xat-xat mais dafa bàyyi lépp ñëw àndandoo ak ñun moom it muy sunu mag ñu jël sunu liggéey ñun ñëpp ñu booloo dénkaat ko sunu liggéey ngir nag sunu liggéey mën a jëm ci kanam ndax fi mu fi la musique sénégalaise aille de l'avant La musique sénégalaise jëm ci kanam li ñor Sénégal la ay doomu sénégalais lañu. Sénégal rek moo ñor. di remercier suma kilifa yi képp ku fi toog rek Zora Mbaye na Sala Grand Guy ak ñi nga xamante sax ku dans l'ombre suma grand yi suma xarit yi suma mbokk yi suma am di jàmm yi maa ngi remercier ñëpp di leen wax ne kontaan nañu di sàkku ñaan nag ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi ndax yoonu ndaw du gaaw donc ñu ngi sàkku ñaan ci ñëpp di remercier encore une fois soppe yi fans yi di leen xamal ni li waraloon maanaam euh, maximum de de d'événement yi du woon dara waaye nag dafa am lu mu doon liggéey te loolu dafa laajoon dem sàkku ju xam-xam def nañ ko pendant trois ans yàlla dogal na pare nañu donc loolu la ñu war ñëw pour présenter leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.